doo dërëm laa la wax yow xam nga bu baax ah, xam nga eh, xam nga bu ma xamee bu ma xamee. àll bu xonq ba xel koom ñi ma woo ngaan foo boo woon ma yenu la dóor suuf. ah yow da nga yéen waate loolu ma jaaxal da nga yéen waate de. Lamine Lamine. Lamine Lamine Lamine maa ngi gërëm Ousseyn maa ngi. Ah. waaw xaaral ma pare. ah moom ak ñëpp dër bi la yow ak ñëpp la. waxal waxal ba pare ma waxal ba pare ma. dama lay wax lu am solo dama lay dama lay naan félicitations. waaw léegi félicitation waaw léegi ci combat bu félicitation ci combat bu rëy bi nga jógee ah. li nga waxoon def na félicitation. yàlla na la yàlla na la. man lu ma waaw ok amul problème léegi après nga wut promoteur lool dinaa ci wax ak yow léegi Lamine maa ngi gërëm Ousin sama benn gars yi sonn ci maa ngi koy gërëm Fatima Ousin maa ngi gërëm Ousin Séri Fatima maa ngi leen di gërëm bu baax ñoom it dañuy jàpp ci affaire bi Baba Fall mm. Alaaji ak Mafia mën a rëbi bàyyiwuma mm. kenn caare yi géej bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp xam nga li ma la di bigab ñëpp di bigab Sarafina seen naa ko muy seetaan maa ngi koy bigab bu wér xam nga noonu la demee mbay guy gi waaw ah. ah. yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na nga eggale carrière beeg jàmm. xam nga lu ma la. non eh, ah, mais dafa bëgg laa lay gëw. waaw defal ndaañ lis leer boo mbëru lamsaar boo dajal yàlla na la daan mais beneen mbëru lamsaar boo dajalul da ngay neexal lamb. lamsaar lamsaar a daan amul ngeen mbër a i i i dégg nga béykat yow léegi su ma la léegi yow yow yow yow yow yow waaw Siteu bi ngeen yaakaar ñett a ok léegi ma wax la dara Lamine. man man tontu lu ma ma Samba tontu lu ma Demba. su jëlee taqe su daanee taqe. taqe damay boromam ba jóge ci victoire bu rëy daan sa mbokk. victoire bu rëy victoire victoire bu xaaral léegi soo ko daanee su daanee taqe su bëree taqe bu ko daanee. wala combat bi. loolu mooy loolu mooy bëreewul man rek lépp Sakka moom bëreewul man. su dee jaral Sakka xam man moom. parce que lu ma koy doyee bay moom. jeex na kon bëreewul man Sakka maam Baal Sakka def daal. ba baaraas daal. non eh mbay. baaraas kay am ko yaa ngi nii champion nga. ma man sama grand def nga lu ne ci làmb déglu ma rek man boo fi deful kon dara du ma bëgg a bëri yow a bëri da ma bëgg a bëri da ngay a bëri waaw sama dóor ko mu daanu barke da koo dóor ko mu wàcc de ma bëgg yow lu raw laa lay def nag man samay mag laa bi ne bëgg ngeen a ku leen gis nga mbay jiw ñi ko daan ñëpp ku ma ci jël ma ko sax su ma ko jàppoon mën naa koo dóor mu daanu. dafa am sax su ma ko jàppoon naa koo dóor mu daanu. damaa buy ma. non ba ma daa ba ma ba ma daanee Birame de soxla woon naa ko soxla woon na ko làmba tërëdi rek. waaw man Lamine après jël ko sax ma seetaan leen. waaw nekkoon fi jàppante bu jëlee taqe. su jëlee taqe. waaw su daanee taqe ma jël ko. lii kay maa la ko. su daanee taqe nga jël ko. su daanee taqe ma jël ko loolu confirmé na bu jëlee taqe bu ko daanee ma jël ko su bëreeg moom combat bu yàgg sax ma jël ko. jeex na moom dégg na la. deful ci làmb lu taqe deful ñoom ñaar combat la deful ci làmb lu taqe deful. deful ah, ci làmb ñor deful. no non soxlawul man du ma bëreeg moom. benn la ma ciy hmm. bëgg promoteur am bi du ma ko fay mënu ma koo fay sax nag du ma ko fay man booy bu ma ciy bëre dañ may fay xaalis. sinon du ma bëreeg léegi yow dëggal non man non du may tëgg da ma may tëgg combat ku nekk lamsaar laay tëgg keneen bu bëggee ma tëgg moom taqe barke Serigne Touba bu bëggee ma nga waxaale ma tëgg ko. Mm-hmm. moom taqe bu ju bu du bëggee. suba nga waxaale combat bi ma boole la ak nit nga dem foofu mu jox la xaalis nga jox ko avance mm-hmm. moom taqe. jeex na tàkk. waaw jeex na sëñ Fallou bëggee naa ñëpp amateurs yi fi newoon yëpp bëggee naa leen. sëñ Touba Cheikh yaa ma gën a xam. non non dama ne non dama ne non dama ne boo jëlee taxe boo jëlee taxe boo jëlee may guy gi dindal dindal kii dindal airpod yi dindi ko. yow xanaa si yi nga yor chinois yi day càng de. voilà. waaw kay. sunu chinois ma génn après nga jël ko daf may sonal ak wax ju bari fii rek. eh dégg kii naan bàyyil ay tax. bàyyi waaw. ñu wax seen combat yi ñaar. non non man bu fekk bëriwut ak taqe du ma bëreeg moom loolu am naa droit. wala mm. waaw am su bëreeg taqe su bëreeg taqe xam nga man dama am ay yu mën a bëreel moom. Mm. man dama am ay poulain yoo xam ne moom mën na bëreeg ñoom. léegi poulain yi bu ci daanee kenn ma bëreeg moom. léegi na bëreeg taqe ba xam mën na daan taqe bu daanee taqe ñu bëri. déggoo ma déggoo ma de yow grand frère nga laa la wax xam nga lan moo tax ma bëgg a bëri yow sama grand. Birahim non non non sa grand frère non sa grand. Oh, Birahim maa ah. maa ko mën looloo yàlla doon. Birahim maa ko mën daan loolu la yàlla doon maa ko mën. léegi nag man bu ma bëree gi man bu ma bëree gi yow dama lay wan ne maa man dama lay jàpp daan la loolu laa bëgg. non non waa léegi léegi nag comme bëgg nga bëreeg man dëgg bu dee dëgg la man ba ma bëggee. waaw Birahim bëggee mu daan nit ci lu ma bëgg a bëreeg moom dama ne déglu ma mu ne naam ma ne ko loo ma fay ma bëre. benn même booy tegg sama xaalis jox ko ko sax jël ko Birame de bañam na combat bi tuuti. ma ne ko gas booy tegg sama xaalis sax teggil sama xaalis jox ko. léegi man waxuma affaire xaalis dama ne la boo daanee taqe ñu bëri. waaw koy na la jaral nga jël taqe daan ko. loolu laa la wax dafa simple boo daanee taqe ñu bëri. yow man ma déggoo li ma la non du xool foofu bu ñu foofu. non man déggoo man maa ngi yow kon man déglu ma fii ñoo bokk ku nu gëm muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul dara jaay se dara jaay Seexul Xadim laa la bu nu bëree woon bu ma gëmee sax bu ma la jàppee daan est-ce que dégg nga ma déggoo ma de. non xool waxumay déggoo ma ak yooyu. xam nga yéen état si ngeen nekk googu di noos di jéem a jaay affaire di kii mbëri yi ne foofu yëpp yàqu ngeen yéen mën a duggee a jeex ci àdduna ku leen gis na xam ne pare defal ndànk nag ma wax la xoola yow mosoo soxor gars yi dañu lay seetaan di bind say commentaire lu rafet yow mosoo soxor sa xol boobu non sa xol bi ku wax bi xam ne non da xaaram wax la eh, xamal lu ma leen di ñaanal foofu xaaram wax la waaw waaw xamal lu ma leen di ñaanal foofu réussite ne ci li nga fi mébét rek yàlla sunu borom tottal ko non mais gars yi bu ñu la weddi gars yi bëgguma gars yi weddi la parce que dafa am noo dafa am. lan laa wax wax lu ma gars yi lan wax lu ma gars yi weddee. parce que parce que xaaral ma wax la rek dañuy waxtaan. yéen ñi dem États-Unis yëpp du ngeen yéen ñi dem États-Unis yëpp du ngeen dara yéen ñëpp laa wax nag bàyyiwuma kenn. léegi ah, est-ce xam nga ne bis bu ma déggee est xam nga ne bis bu ma déggee dem nga Amérique bis bu ma déggee yaa ngi ñëw Amérique dama lay kar ci aéroport bi. xeexal yow ñu génn Amérique bu ma fa ñëwee ci mbedd yi laay xeex ak yéen di bëri ak yéen barke alxuraan ñun ñëpp la ñuy boole indi waa Sénégal. ah en tout cas xam naa ne léegi ñëw de xam naa dañuy gars ñëw de du ñëw. moom bu ñëwee fii damay damay su ma su ñëwee fii day damay fexe ñu delloo ko parce que li tax. moom bëggul ñëw Amérique moom bu ma ñëwee États-Unis ngeen abal ma États-Unis yéen ñëpp ngeen xam ne ndaanaan laay door a wàcc yow doo ñëw yow bëggoo ñëw doo ñëw yow soo ñëwee da ngay yàqu moo tax boo ñëwee da yàqu te waroo yàqu laam da nga yàqu toogal Sénégal lan moo may da yàqu non ni ñu yàqoo da ngay yàqoo non yaa ne ku fi nekkee dafa yàqu yàqu amoo doole wuy ma volume ngay jaawale ak doole amoo doole rek lan mooy man may xale bu ndaw judd man quatre vingt xale nga nangu naa ne xale nga weddi lu ma la xale nga xale nga lamb dalaa yaakaar mais dama ne volume bi doole ji doole jee gën a néew volume bi volume bi ëpp doole gi liggéeyaatal tuuti barke Seexul Xadim loolu ay conseiller lu ma lay jox la bu ma la jàppee barke Seexul Xadim duñ def minute maa ngi yow non mbay bi yow buñ doon bëte yow buñ maa ngi yow duñ bëre parce que dex duñ bëre doo jël yow boo jëlee taqe boo jëlee taqe da lay daan doo ex ci man waaw waa taqe moom du ma ko jël kon xam nga ne du ma bëre ak yow kon duñ bëre jeex na loolu problème bi taqe rek man man man lamsaar yow laa fa soxla wala maama Lamine wala Siteu wala nees yéen ñooñu doon laa fa soxla ba tey li moo sa adversaire foofu ñooñu kenn du ci bëre ak waa léegi kon man bëréew maa ñeneen ñi ma nit waaw kon am nga loolu am nga droit léegi li ci des util beneen at util beneen écrit nga. yéen amatu ngeen yéen amatu ngeen benn cent personnes bu leen di seetaan man làmb léegi dama koy. non non non non non non wuyu ma wuyu ma wuyu ma wuyu ma. làmb joobeewul noonu làmb. xam làmb nan lay joobee. xam nga làmb nan lay joobee. waaw saf xorom am bayre lamb noonu lay joobe boo amee xorom saf bayre. waaw xaaral ma la. promoteurs yi bu ñuy def seen làmb ci xaay dañuy def seen xaay def ko ngir investir ngir am dara dañuy waxtaan léegi tëggatuñ fi kenn koo xam ne doo fi indi ñetti nit buñ la tëggee dañuy bëgg nga indi ñëpp te man mi dinaa doo topp sama ginnaaw ak bawal dëgg la loolu dëgg la loolu moom nangul gis naa bi pas indi nga lu bari mais dama ne man man man musuma oh. bëree ji seetaanuñ ma non doo gis doo gis nga ko waaw Lamine xoolal doomu Bawol ak Medina. waaw leer na nañ. waaw maa ngi entraînement laa demoon. set bi rafet na bëgg na bëgg na mën a nga jàpp nga nga jéem a jàpp kañ. kii bëri na bëgg ak yow. te yéen la xaw a yénu. man a jàpp kañ. yénu nga xewal léegi yénu. Salim Mbacke bu ma non la non non Lamine du mënuñu bëre parce que nanguwul ni def may ñaan sens damaa daan grand damaa bëgg mënu li nga def sama grand mun bëree ma def la ko. ba tey ba tey li ma bëgg dégg déggaguma ko ci yow de. man da ngay yaru lan nga bëgg a dégg dégg la da nga damay damay ñaan sens nga daan sama grand fëgal la ñaan nga jël xam nga fi daan la. Ah. a nga ful. waaw léegi da léegi da ngay ñaan sens mayu ma la. <laughs> loolu kay mooy bu ma bëree yow nga daan ma. jeex na non dama ko mayul. ah, ah mayu ma ñaan may mayu may sa mbokk yow kuy sa mbokk boo ko nee mbay gi laa bëgg a jël danaa la du ko jël moo la. man du ma jël non man du ma jël avance di tàggoo bokk ma mbër yi ragal yooyu du musuma jël avance tàggu benn mbokk parce que benn mbokk taxul may liggéey sama bopp a tax may liggéey. waaw waaw baax man moom boo ma jëlee doom day barke maam Seera Fall dama lay daan huit fee duñ bëre parce que duñ bëre maa ak yow duñ bëre lu ñuy bëre duñ bëre maa yow. man moom wóor na sa man. nee woon bii promoteur sa yabee ma noonu. promoteur sa yabee ma noonu promoteur sa yabee ma ma naan ma woo ma naan yaa ngi mbay guy promoteur sa yabee ma. waaw yaay gan. fëgale vainqueur de Birame door mu daal muy bañ. waaw bron central ba. lamb yooyu ngay wax yëpp boobu maa nga dëkk ba di. om bawal yëpp bawal bawal xoola bawal yëpp jooy ñëpp reeruñu reer yëpp ma këpp ko. waaw lool leer na mais barke Seydina Mohamed boo ma jëlee yow tey jaaro ya jàmm gën nga nga dëkk kenn du reer. xanaa kay looloo gën a dee. taxe boo jëlee taxe man nag mbéy guy gi mbéy guy gi sa combat tarkindaay yàkkamti ko nag. tarkindaay duñu dara. ñoom dañuy def yi di moom Abu Niasse waroon nañ bëre bu yàgg ki moom Abu Niasse waroon nañ bëre bu yàgg Abu Niasse di eh, Abu Niasse Abu Niasse cinq combat Tarkinda Abu cinq combat ñetti défaite ñaari victoire ma am na combat am na combat mook Pam Ndoy non mook Pam Ndoy Abu Niasse ñaari victoire la ñaari victoire Abu Niasse Pam Ndoy non dama ne Abu eh, Niasse ci victoire waaw wax la dara bu ñu xoolee ci Lamine kii bu ma xoolee victoire duñu bëre parce que moom li mu bëri ci combat dama ko bëre ñetti yoon man li mu bëri ci combat ñaata victoire nga am non dama ne li ma bëre yow li ma bëre ci làmb li ma bëre ci làmb calculé huit défaites laa ci am li ma bëre ci làmb comprendre nga huit défaites barke Seydina Mohamed bu ma ko naree am ci làmb bàyyi bëri waaw déglu ma wax la li ma bëre bëre woo ko li ma bëre bëre woo ko te doo ko bëre yéen booy da ngeen tombeeg làmb ji neex man dama bëre quatrième combat bëre troisième bëre spécial bëre man. waaw. xam nga li yow li nga bëri si combat xam nga keroog gis naa ñaata combat nga bëri man dama ko tribule ñetti yoon. li ma bëri léegi waxuma lool yëpp da nga may jël wala jëloo ma. ngay ñaan sens bëreew ma yow mayu la. léegi yow lal moo tax jëloo ma da nga maa ragal wala lan la. bëgg nga bëreeg taqe parce que damaa gis yàgg taqe combat bu neex la. ay boo ma jëlee. non non non non ah, dama la jël parce que doo bëreeg taqe boo daanee taqe ma jël la. Lamine bu jëlee bu jëlee taqe barki fii laa la ko waxee bëree taqe foog la rombati du ko xool taqe da koy duma daan ko lii mën naa ko waat ku wedd laajal laajal fi ki mu jóge taqe day dara kooku yaramu pompe u boobu nga naan taqe même baxal taqe jóge ci ndam bu ma bu ko xaste bërki dem rek laay werante ci yow ñu ne pataa nga ma pataa yow moom bu dee affaire pataa ah. moom bu ko wax eh bërki démb rek. ñu ne pata pata man may xale bu ndaw. su meekul su meekul mbay bi. takk xale bu ndaw la su meekul. Eh, takk xale bu ndaw la. su meekul combat la. Lamine kii moo takkee bu ba waa léegi moo takkee bu bëggee nga joxe avancé. su meekul jël farba bi. la la la sumul beneen bi de sumul beneen bi sumul beneen bi. Eh, sumul ñaar yëpp. sumul sumul sumul. moo takkee su meekul. waaw waaw. moom tax bu bëggee suba suba suba. Eh, kii eh, eh kiiru pataada. Ah, eh. pataala pataala pataala. kiiru pataada. barke Serigne Salim Mbacke bëgg na boo ma oh. du mu du bëreeg yow. Ah, waaw man nice. man wuy ma. yi ngay naan yëpp amul njëriñ lii lay ëpp nga foog ne dara nga doo dara man doole laa naturel. barke maam Seera Faal bu ma la jàppee dama lay daan maa la bu doole fu man xale bu ndaw laa. wuyu ma waaw wuyu ma. wuyu ma. maa lay def boo jëlee saqe boo bëree ak moom ma jël la. yow ma boo jëlee saqe boo ko jëlee ma jël la. mënoo bàyyi woon ay saqe yi man du ma eh, man du ma sa morom man foofu su ma fay bëreel tafaatin laa fay bëreel. tafaatin tafaatin dama am Birame su may bëreel foofu tafaatin rek laay bëreel ci làmb foofu. sori wuñ même génération lañ rek. yow yaa ngi tafaatin. ah waaw. Tafatin man manuma koo daan kon manuma koo daan bu ñuy naa laa daan mais man man naa koo daan man du ma jàppanteeg man samay dóor mu daanu laa man du ma bëri benn di la jàpp dama lay dóor bëggoo la doo leen gis bu. yow say lapp tàgg nga yor say lapp tàgg. doo dóor kenn. yow doo dóor kenn yow bii nga yor bii ma yow ah. bii bii bi quatre vitesse bi bu xasee romb rek. saa da ngay xool foo tëdd nax nga sa bopp. Ah, baax na. ma xam nga sa combat sa combat bu neex la wax na Serigne Touba. non promoteur yabeewu ma noonu Lamine promoteur du ma woo di ma wax loolu. ku ko def doo ah, maa la ko wax. déglu ma fi jëloo ma dinaa am combat boo xam ne déglu déglu. yeloo ma nag dina am combat boo xam ne mbër moomu barke Serigne baa Mbacke. mooy yónnee naa la ko mais kii même génération la ak double moteur. kii même génération la ak double moteur. non non non yéen a xamut di man xanaa moom man waruma laa laaj sax yow double waru laa daan sax ma lay laaj. waaw non déggoo ma yéene naa la ko yéene naa la nga jël ko raw. double waru laa daan sax ma lay laaj yow double. maa double mais mais gi. mbay guy gi. sa digganteeg Modou Dia looy jox Modou Dia. duubu de lu Modou Dia lan laa koy doyee Lamine. yow eh, yow waxoo ma Thiat eh. Boy Bambara di ma wax Modou Dia. <laughs> non combat la Thiat combat la Modou Dia la. man déglul ñu mun ma tegalee nag Thiat mi ko daan laay jël. daan yow Lamine Lamine non Lamine Lamine kii waxoo. ma ñëw confirmé def dara di jël Modou Dia. leen bàyyi leen. waaw bu mbër amee benn combat gémité ngeen bëgg ko tëbal moo waral booy ku ci tëb da gaaw a kii ki mu war a war a bëri. xam nga moromam mooy kan la war a. mooy kan war a bëri la war a bëri taqe. li ngay wax amul benn njëriñ xam nga lan mooy. wax nga jël waaw waaw a bëri taqe bu dee lamsaar dafa war a bëri taqe. Lamine Lamine la Lamine bu ma waxati Modou Modou laa koy doyee caat. daal eh, la eh, may may loolu combat la. man dama kan laa soxla. combat la combat la waaw. bu ma mën tam waaw. Sarko. waaw. est que yaa may dégg. waaw. yaa may dégg bu baax. fëgg la. Hmm, fëgg waaw ah, man du ma bëreeg moom Lamine. kii du bëreeg man bu dee man ak du lewtoo. Lamine yaa may dégg waaw maa ngi lay dégg waaw. nga xam ne man tam combat bëgg naa. yaa may dégg. ñi wax ñëpp kenn Lamine dégg nga wala déggoo ba. dégg naa la kay damaa waaru. ay barke Seexul Xadim moom yaa ko ñëpp non Moussa Ndoye ñooñu ñëpp képp ku ma ci ñooñu ñëpp képp ku ma ci jël ma daan la nag Lamine ma wax la ko tey sa revanche yi laay goote non ay soxla ma tamit Lamine nag yow it nag foo man nan laay bëree di avancé di geesu tamit yàlla day def mbër daan la jël bu leer amul werante mais wax dëgg léeg-léeg yàlla day def nga def jéego romb ko waaw loolu day am day man ñi ma daan ci mm-hmm. làmb yëpp soxlaawu ma sa diggante qualifié 2 wala général. qualifié 2 lan laa koy doyee. Ah, général la laa ngi nii. mburu eh, fukki dërëm fukki dërëm mburu fukki dërëm. yow boo nga xam ne mburu fukki dërëm la lan laa koy doyee Lamine. Lamine sër mën naa war ci ko man. kii ñemewul tarkindaay xalaatu ko sax kii tarkindaay ñemewu ko leen. biir tarkindaay attanu ay tapet ngeen jëlal tarkindaay jëlal jëlal tarkindaay bu ñuul bi. kan moo yéen xam nga ay lan xam nga lan ngeen man ne ci télé bi di ñeey. léegi non non xam nga moom Lamine. Lamine tarkindaay comme ci d'accord bu amul promoteur Lamine yow mën naa laa jox ma tëj bay looloo gën a dee. déglu ma fii déglu ma man dëkk ba laa jóge bi may ñëw sama yaay dal maa gunge ba ca àll ba. est-ce ma. booy xool fii ku fi paasul fi paasul ñëw sa paas ñëw yooyu affaire xel a jóge dëkk rek waaw nga yow da déglu ma dañ ma gunge ba ca àll ba dama boo demee ndakaaru xam nga lan lañ la san nga liggéey hmm. nga yem bul xeex bul xuloo li nga nekk nag boo ca demee defal fula ak fayda mais man xew hmm. ma ci mbet dem police tey bu subaa ma dem police bu naa suba dem police xaw ma loolu waaw ah. nag police dem police tey suba ñëwaat police demaat fii ah. Ah. balaa combat bee jot. di nga ne mbay guy gee ragal day delloo avance bi. fii torki ndaay bi dégg mm. barke Serigne Salim Mbacké yëpp moom Abu bu ñu fayul woon dara bu ma gisee ko koy dox bu ñu fayul dara man maay fay abu man. Abu Ñaase mm. la Abu Ñaase di tapet. Abu Ñaase am na combat moo pam doy moo pam doy. loo xam ne mi ngi seetaan live bi de boo ko waxee tapet. Abu man dinaa dajee saat di xeex man may dajee saat sol lu rafet yéeg ca kaw léegi ko boo ko waxee tàppe da ngeen xeex de waxal xam de Lamine mi da lay jey léegi bu ba man déglu ma man am naa geneen jot gudul xeex xam nga lan laay def mbay guy gi sangu ba set dem liggéey yi moom mbay guy gi mbay guy gi waxal suñu combat bi comme ñun ñoo ko tëgg Abou Ndiassé Pape Ndoye noo ko gisee Abou Ndiassé Pape Ndoye combat bu neex la euh. est-ce que mais euh. Abou Diassé du dara coow ko dugal ci la Pape Ndoye ko man foofu. dégg <laughs> bu bëggee ma jox ko eh. avance abu moom bu bëggee suba suba nga waxaale ak moom ma jox ko abu moom. waa yow pëgale yow man da nga maa xaalis yow ba may waxaale di ma fay yow. yow yaay États-Unis mais man li jëm tiw ma la. non bàyyil États-Unis Amérique dañu fi war ñëw rek ñëw fi bàyyil affaire Amérique. non dama lay wax rek man mënoo maa fay man déglu man da maa ëpp xaalis da maa ëpp xaalis ba may waxaale Amérique jom Amérique jombu la waxal ba juboo xam boo waxee ba juboo da Lamine suba mu jox la avance yow léegi waxal koo soxla yow it ma jox la avance non man mënoo ma fay li tax mënoo ba léegi yow yaa mën a suuf léegi xaaram wax la waa da nga may jox avance ah waaw da may jox avance waaw léegi léegi maa ngi ma léegi léegi wax ma wax ma koo may jox ma laaj la avance ma wax la kan laa lay jox. waaw. sa bopp sa bopp ma jox la wuli deux. wuli deux indi avance bi. pare nga. pare naa waaw. wuli deux sax joxuma na ko boo ma bëggee nga jël ma mu jeex. <laughs> déggoo li ma la ko eh. boo fi kii non boo bëggee combat may ko ci taxawal ko xaalis joxe xaalis yomb damay jël damay joxe xaalis yomb na de mais xëy joxe yombul de damay joxe. ak yomb mais joxe ak a jafe. mu wéy ma man da xam ne kii seetaan live bi Abdou Tall sama doomu ndey mu ngi ci biir de laajal Lamine kuy Abdou Tall. Abdou bu xarañ la xam Abdou bu xarañ la xam Abdou bu xarañ. Abdou Abdou bu xarañ waaw Abdou bu bu mbay guy gi. Abdou bu mbay guy gi nangu nga ko nangu nga ko Lamine. nangu nga ko Lamine yow ñëw nga Sandaga Lamine yow ñëw nga Sandaga ñëw nga Petersen yow xam nga ni mu demee. non mën ngaa tëgg combat bi xam nga ni mu demee. waaw. yow moom bu mu ndoxam mu bëri mii rek. jël ma ngir yàlla. léegi léegi dama lay. neexal ñaan sens mayuma la sens. non man amul neexal dama dul bëreeg yow fëgg mbay guy bu fekk fëgg di jël mbay guy lu mu lay wax. ah. Fatou rek nga fi daan ko mbër bu ma na torop nag jël bi na torop. rek nga fi daan ko boole ci laa <laughs> mais. bëreew ma ak yow. tafaatin bu babal su ma fay bëriwaat tafaatin laa fay bëri. doo ko wax xam nga ne kaay ma xamal xam xam nga ne kii carrière am saye yow xam nga ne yow boo góorgóorlu doo ma jël ngir yàlla. dégg nga xam nga gis nga li ma la wax li moo tax mbër mu ndaw succès la succès dafa garaaw quoi succès gis nga wuy ma. la lan mooy succès lan mooy succès eh, déglu ma wax la. waaw xaaral ma wax la fii ma jox la benn conseil bu ndaw waaye ma jox la benn conseil bu ndaw. yi ngay def ni erreur la ci live ëllëg booy daanu ñu ne. lan mooy erreur xam nga def live ak fëgg la ak lamin jigéen ñëw ci wetam mu koy woo nekkal nante. nekkal nante. wax eh, eh, na. bu ma neexee indi jigéen léegi teg ko sama kaw fii di waxtaan ak yow te buñ bëree ma duma la daan la. non man du ma bëree ak yow. xanaa looloo man damaa dëpp dara lu may def ci àdduna man samay wax. direct laa koy wax li may lay def laa lay wax. maa ak yow duñ bëre nag duñ bë duñ lanam nga lanam nga lanam nga lanam nga. bu ñaaw. eh eh wuy ma gerefaas gerefaas bi da nga ko àpp demal delloo gerefaasu jàmbur bi nga àpp. <laughs> yow gis nga ma gis nga ko àbb. Eh, wuyu ma wuyu ma. dégg nga ah gàtt sori daaw nga di daaw daaw. gërëfaas daf ko àbb. yow wuyu ma fii. jël ma ngir yàlla ak jëmbi Serigne Touba. waaw ku may woo Zarko am naa koom Zarko waa kay Zarko lu tax mu réew yow Zarko anamu. Zarko mbër laa tëkku nii fëgg mu may daw nii. ah doo jël ngir yàlla.